dana tey di dama soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp su Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Sonic Money Transfer ñu ci ñetti Siber ak ñent deka ci biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jottum xaaliss bi nga xamne kenn du ko lam lamé saytu leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mëna bind bindu suñ app bi di Supersonix Money Transfer app da ngeen mëna a ci money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. rek la ak electronic money transfer waaye dama koy ay mbégte rek la toog ak banque ah, mi nga xam wax dëgg neex yàlla moom ah, dafa bëgg ñëw ah, gis ne dëkk bi nu mel neexut ko mu bëgg def naka la ko gars ko defee rek ñëw toog war nekk suñu président te jamono ji nag wax dëgg fa neex yàlla raadu yi ñu ko gis every moment every saturday nii every sunday ku nekk ak sa bés moom mu ñëw mu ne leen ok I can do it and dafa war def li nga xam ne mooy raadu ëllëg mooy mooy Friday euh, foofu noonu si fi nga xam ne mooy Bouva zone bi euh, foofu la moo defee raareen bi tey nag euh, loolu leen toog waxtaanee ko and then maa ngi oot every Gambian ku ñu ñëw ñëw join ko si raareen bi dem dégga lan lam am ko waa askan bi maanaam ban message la am ko waa askan bi banki na nga def jaam rek si loo nekk man danaa mm. soona di up and down maa ngi just jógee Bouva zone ngaa ngay fix sound bi so kontaan naa trop So, man, lan mo inspire yung nga wara def uh, linga ang xam um, rally, record? Eh, eh, mm-hmm. Nga ñu so duga politik. politique, -hmm. nga wone sa crowd we. Eh. pour nit yi xam serious. So, comme que noonu lañ dooree woon si billboard bi press conference bi nit yi di ma gën a jàppee serious. Léegi mo ne xaaral def rally gaa gën a xam dama pare. -hmm. So, is it na because nit yi ñu ngi def uh, rally mo tax yow nga def? Yeah. unfortunately, sometimes you get into a game, you have to play by the rules. Mm -hmm. So, rally bi kañ la ak fan Rally bi ëllëg la, buffer zone, doore ko 6. Although Gambian time, one naa leen hour 4, parce que Gambian soo leen waxee 6, ñu mm-hmm. dee ñëw 6. Mm-hmm. Wa suma permit bu ma police yi jox, ten o'clock la mo la mo jehde. de. So, soo leen teelutee ñëw ngeen foog rally bi mu hapon late da ngeen mhm. a de. so tell leen na ñëw ñu ngi daje euh, Westfield. Westfield Pull them buffer zone. Mhm. I boori four thirty five. ñu mhm. jublu buffer zone six new door dem beten. so Banjie nakala la mood bi right now. I think it's groovy. Man, my only issue is I, I wish I was as rich as other parties because you know, call my t-shirt. I have limited t-shirts, so I need to apologize ahead of town, Uh, ahead of time pour suma fans yooyu ñu bëggoon t-shirt du ñëppay mën a am t-shirt si dëgg dëgg bëgguma leen a fenal mhm. waaye luñ plan mooy xëj na si rally bi mhm. ñuy nekk di every time si diggante woye ak suma wax ñuy sànni t-shirt si crowd bi ñuy tombe tombe waaye si dëgg dëgg duñu ñëppay mëna am t-shirt té ma ngay jégalé ci lolu ñu ne ñankaar bañuta indi bu butiya ko fétu ko waaw lolu dégal la ah kon yow nekk ñi nga dégg wala non dama dégg dama dee lakkantu rek dama dee lakkantu da ngaa raay rek <laughs> ah kon na ah, banki eh, sa rally bi am élé ah, kan moo nekk di phone rally It's all from out of pocket expenses. International eh, donor or any bank account Gambia na feel na it is high time you jàppale la. ah maa ngi doon dégg sa advice xëy na gaa jàppale ma after rally bi. so everything yow kenn. everything man kenn la loolu moo again Mangi ngi jégalu si askan bi am very very sorry so amutee t-shirt ëllëg eh, xam naa t-shirt si affaire la boka. waaye comme ni ma ko waxee rek doole bi fu mu em foofu lañ ko emale duñ dem di saaca pour def loolu noonu. so ñan lañu expect si bés okay so we have Firehouse Sound we have Ayolas. Air ya, Marshal, Sparkling Black, Sakarim, Mancure, Jam Michael, gay bari nañ DJ Sky, DJ Mutabaruka, One Force Sound, ñom ñu fang ci biir. sa sa bés bi ñu bari ñu ngi wane xit na rasta yi nga faa gis yi nga you know psycho yi nga you know sometimes you know yama ma gën a xam dañ dee mënoon la dal. waaw kaa dañ dee wax lu leen ne waaye yow ah bëggoon naa nga fekke ko ëllëg yow nga gisal ko sa bopp nga kooval ko sa bopp nga wax leen ña na fa nekkoon am expecting a mixed crowd xam naa ne boy yi dañ ma support te óor na ma ne boy yi dinañ génn out in their numbers waaye xam naa ne gaal si ak ñoo xam ne dañ bugg a dégga comme dégga lan laa am pour wax because tase naa yéen a booy fii tey seen lefin bi sax ñu ma laaj ne ah léegi loo foog éducation bi foog loo woon ne da nga war a gën a concentrate si sa yow IT man nga foog loo ne IT mun nañoo génne ma ne ko waaw ñëwal nga lu ampul wax so I expect the the ghetto crowd comme yow noo ko waxee but I also expect the responsible crowd to turn up and listen to what I have to say definitely yeah so a lot of people bi nga waxee ne da nga am rally am na ñoo xam ne ñu ngi question na is it for real is it ne oh dafa just wax loolu noonu or oh, flag yoo oh, xam ne rek or oh, posters yoo xam ne dañ ko just post ñu bari ko mun ko woon waaye nettali si laa ma ñu borom gaa ñi ne werante xuuxaan mhm. simil ngeen ba seet ñoo leen ñoo leen élec ba fa zone ñu seet da raali am na wala raali amul mhm. ñëw leen fa zone élec ah, dinaa ko nekk incha allah dinaa nekk si diggi programme yi waaw yow moom dafay ah, nekk si programme yi ko we're here for every Gambian and every Gambian bu Ah, nga bokka dañ la dem si sa place ah, gannaaw kenn nenut ñu we're here for Gambia ñu dem xool lan la banque am ko wa si lan nga bëgg a waxtale léegi um, si manifesto bi ak maybe clear the air about cannabis because fu ma dem rek ñu ne ma waaw taay free mm. ñoom noonu lañ ko dégge mm. bëgg naa ko leeralal nit yi lu ma miinoon si loolu ñoom ñu joojal seen boppa nit yi dofatuñ xam nañ affaire yi naka la fa taajoo all I can do is take the donkey to the to the river, but I cannot force it to drink. Uh, i am not coming up. wax banki banque du ñu fa ay reggae music ak all that loolu am na ndax amul. I'm sure ne i am artist yoo xam reggae music when they play I cannot stop them from but i am not an artist yoo xam ne dañ dee play reggae music i am na ay DJs yu fa nekk tamit so it's it's not about me it's really about the crowd I'm trying to sell an agenda to the crowd so I will have to please the crowd crowd bi la ñoo bégal. du man fële yéen ku yéen mooy sa sa sa sa bi you know ñun euh, tuuti wuñ di euh, naka la fii tudda euh, Bouva zone a lot of people ñu ne foofu dafa rëy ku yow ah, waroon nga wut at least a smaller space ko ma mën faa feesal parties bari feesalul like parties yi ñu wane yan parti sa ko feetal ah, lu gaay wax te nekk man maa ko wax demuloo woon ma foog nga ah, waaye lu gaay wax ma man analyse naa already waaye léegi ñëwal nga gisal sa bopp ëllëg yo nga gis dab ba fa zone feesal nañ ko wala feesal nañ ko forcé non man dama foogoon ne ba zone du doy sax waaw ah, boy yow tamit five hundred thousand people between eighteen and thirty five ñoo xam ne musuñoo register musuñoo vote seen life man ma jaral leen ko ñu dem uti voters card register nañ ah boy ba zone dina fees IEC fo nga ne gadi ne la um, ne ne accept banki, yi ku taxaw. I do have all the qualifications. I believe I do. Si package dem nañ jëli sun package bi ñu ngi fill nomination forms. IEC tamit dañ metti affaire da nga am pour every nomination. One by one. jang ak ku No li boy. Lolu anyway <laughs> in 2021 won na ne bay nañ di use pen man gëj use pen. So da nga bëggoon mu nekk online. dama bëggoon xëj na soo ko mënee type tamit nga type ko mu present ko nicely léegi naka nga xamee ne mistake ma spell ma Fatou Samba xam nga yaa ngi ma jox sa voters card mais bi mm-hmm. ñaari zéro ñaari o laa fa binda o bindu ma fa bi disqualified spell loo ko buba mm-hmm. so but I believe I have the qualifications it's a high school qualification it's only ten thousand it's five thousand nominations so come yomb na that side is yomb mm-hmm. lu métti mooy Mm-hmm. waxa nit yi convince nit yi especially ak mentalité bu politics bu fi nekkoon dugal si nit yi loolu moo métti loolu laa door di dunda léegi te anyway maa ngi enu daal di dem as usual di mooy waxtu amut ban waxtu moo amut waxtu waxtu anything amut waxtu amut daal pour ñu continuer niñ fi niñ fi nekkee Um, that needs to go we need to bring new things in. Mm. loolu waa quotidien kon nag ëllëg dina leer foofu noonu si fi nga xam ne moo nekk boobu zone bi euh, four o'clock rek euh, ñu dajee foofu noonu yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi hmm. euh, toog leen ngeen xaar Fatou Samba ma indil leen live coverage man ak sama team ay dina fa nekk xale yi tam dinañ fa si biir place bi ngeen gis lépp loo xam ne mosu leen koo gis si wàllum li nga xam ne moo nekk raari banque Eh, du ñàkk eh, sometimes eh, so politique bi di ñëw lan the sa next step after rally after rally more rallies in different locations dugal nomination ba pare ñu door campaign bi nag mm-hmm. pare nga ko def any coalition at any party I don't mind but they need to speak the same language if if we're having the same ideas then there's no issue

<laughs> askan baa ma ko laaj askan bi la ko woon ma askan bu la ko laaj déedéet man ma woon man laaj naa man interview rek laay def askan baa ma ko waaw boobu after elek dinañ ko waxtaan waaw boobu dégg naa la ko <laughs> parce am neen jabar soo ko na yow am nga si o so soo xëy na jaay bu nga xam <laughs> lan la dafa am ñuy offer ok wala ñu dugal wala wala ñu dugal application. fu ñu ko dugal si man la si yow. si yow nga nga betal. man maa dina antal ay application. non di nga ko antal. Ah. wóolu naa la pour nga betal. ah, ah kay kon nag mbokk yi fii la ñu dem ak yéen incha allah ëllëg rek banque dina ñëw mu waxtaan ak yéen banque dinañ expect a different dress code ndax the same bank la the same dress code and all that. li nga jàppoon ba mel nii. ko bàyyi jik na la nga <laughs> ne naka delluwaat foofu li teh jàppoon bi mel nii eh. bu ko bàyyi te jig na la waaye da nga dégg olof kan rek kon kan, ah, you want me to change my door di kosu déedéet déedéet gaayaay wax ana gaay waxala gaay no okay. do you want me to change seriously kon mun dema dem kot kawar bimanyo neka ñëw No, it's not about the appearance. Lula laa no no no no what I'm saying the lula la Moussa waxoon du mm-hmm. kawar bàyyi def liggéey the brain mm-hmm. Guy, they need to look beyond the appearance man dama bëgg a Gambia them kanam in the sense that dañ they hold nit rek teg ko ne ki lila or oo lila. Lula, lee la loolu laa bëgg mu gën a dëñ si Gambia moo tax may forcé the dual image because lulu. mu ngi rasta mu ngi raxas image yi rasta yi mm-hmm. ah, at least am nañ benn rastaman bu dem ba qualify mën a taxaw président mu ngi liggéey MRC Ghana am nañ eh, ministre bu nekk rasta sant yàlla ñu ngi ñëw nanka nanka mm-hmm. there's a lot of fighting against and it's all like comme nu society de xalaate mm-hmm. and man xaw da mun ngaa bàyyi xel but everything I'm doing is like testing society has society moved on or is society still at that place where we're stereotyping people You help me because niñ leen gisee fekk jaruñoo help. so man loolu moo ma gën ne there's a portion of society boo xam ne Fale faalewut leen woon man I decided to identify myself with that portion of society because gisuma lu leen lu jot there's nothing wrong with them ganaw lu leen nit so if I can continue that fight, Bobo mom, na dem rek abadan duñ ko stop. Mhm. Rasta bi mom duñ ko dog. Rasta bi duñ ko dog kana kan eh, ngay wax ku ñu war la fon du ñaka ñit di sétane bu nga xam naka la mo mëna foné banki eh, maybe it can be a platform where anybody can phone. So Kulabuga phone naka. Well, if you allow me, um, I'm na I'm na, pay, I'm na okay. PayPal support at Watu TJ watotj.gm am naa cash app dollars watotj and foog i am naa gofundme tamit watotj so all you need to remember is watotj w a t o t j so demee gofundme a check so they may um, cash app tamit a check di go for fa mun locally i don't know afri money six month number no. i am na afri money Kuma ma bëgg send five dollars yi bañu ma dara gannaaw dóor saaga xaste mm-hmm. waaw ah, boobu. boobu sax léegi bañaatuma ko si. mun nañ maa dóor gannaaw dóor bi. Ah. saaga xaste bi mun nañ maa ah. saaga mun nañ maa xas. yaa ko dara waaw. kon nag mbokk yi eh, rasta yaa ma soraan man ëllëg suma ñëw dafa jar ma rasta. non bëgguñ fake rasta réer rasta lañ bëgg soo dooree di mooñ affaire yi tey si guddi. Hmm. waaw dañ mun nañ la bàyyi. ma jaaxal ma am kawar yéen ñi ma xam kawar ma rasta kawar. rasta si xool bi la du si ah, just non non non. xalaat so Aida please léegi nañ change boobu parce que def ma ne moom la. non Aida pare Aida moom pare na si la di nekk man maay nekk system bi so please allow me to use some of my ëllëg waaw su ko defee ma def you know what I'm saying ah what could ci jee kon nag ma ngi jërëjëf Fatou thank you very much waaw number one bi mooy ñun ñoo jël force Take gis ñoo jël force number one door nga de gis science I don't loo de gis science yi maa a lot of people are recognizing Banky and so many people tamit ñu ngi wax du man ma wax de askan bi bu len ma jooj ah gars ñoy wax ne ne yi si wax daf dee wax sound and no but not only that gis nga ñeneen ni ñu ñoo amé problème di tassaro ñi ngi xuloo liggéey yalla du jot rek yomba du jot yomba kon nak bye bye eh, mbokk yi <laughs> jërëjëf ah, thank you very much eh, bye bye bye ëllëg leen ñu jëli ko péegu mu ne ñoo da dem jël péegu coronavirus kon génn leen ngeen dem jël péegu coronavirus xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jaama nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bind si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix.